nekk à l'extérieur moo ëpp ñu bëri gis ni da nga gën a concentré donc ci immigration yi am ñu naan Abdou Diouf léegi est-ce que sax nekkul immigré. waaw mais xam nga man euh, maa ngi Sénégal mais tamit comme ni ma rek ñun ñun ñun ay gor lañ te vraiment ñi la war a jàppale duñ duñ la jàppale du dëgg kon da ngay toll foo xam ni yow faaw nga dem nekk ci leneen waaw mais vraiment day am nit ñoo xam tamit say nit lañ waaw ci làmb say nit lañ ku mel ni. Pamel, vrema vraiment borom Dakaru koku koku suma nil la def ma bëgg ta yalla tax koku ma koy ñaanal lepp lu lepp lu muy wut ci nguru mak Sall lepp lu mu ci mbebet yalla may ko lu ko upp parce que bima ma Forza yalla def na biñu ñu biñu xamanté yagul sax dama bëree Forza parce que mok mom moy kilifa Omar Khasmou Dia Omar Khasmou Dia xamal ni ma Abdou Diouf ma mu boma télé pamel man nga téye ci la ñëw di tooñanteeg Omar Xaasim Diagne ni ko Abdou Diouf mi kat vraiment man dama ko sopp même bu dul loolu warul bëreek sax Forza mais dinaa ko dinaa bis ni tey def naa ko sama doom dinaa ko jàpp te yàlla tax te li mu waxoon lépp def na ko bi ma bëree ba pare ñëw na sama kër defar ma teraanga defar sama waa kër teraanga xam nga loolu du lu yomb maanaam lu ma defal yàlla maa koy sante yàlla mën naa ko defal sama bopp mais dafa nekk geste bu rafet rek xam nga fi mu toll nii bërki demoo Njaay la ma woo ni ma Abdou comme que affaire yi sont nga ci trop ànd ak man def ci lu nekk te xam naa sa yéene kon yow fi mu toll nii heure boo waajee demal ma dagal pare naa dagal naa la billet pour nga pour nga dellu dem nekkaat ci leneen xam ma ko mel noonu vraiment ñu ngi ko maa koy remercier te et tamit liiru jaan da doon ngénte léegi suma xarit suma doom ndey vraiment am benn teranga bu ma fa fekk mooy li ma rek euh, liiru suma xarit la suma doom ndey la léegi laa fa dem euh, Basirou Sow euh, responsable politique ñëw fekk ma fa ni ma Abdou ci mbooloo mi yëpp ni ma Abdou mënu ma mu ba ma lay bëgg dafa yàgg ba ma lay suivre say combat suivre ma Balla Gaye suivre ma Modou kenn tey ñoom ñëpp maa ngi leen di defal teraanga léegi nag yow comme que yàlla boole na ma yamale na ma fii tey kon bu sooba yàlla may naa la terrain foo xam ni ah boor jam ñaajo ci booru géej gi foo xam da ngay tiim aéroport bi xoola surprise boobu di ko ñaanal nag waaw di ñaanal Bassirou Sow Thiaroye sur Mer responsable politique lépp lu muy lépp lu muy séntu moom it lépp lu muy séntu ci ci ci Macky Sall yàlla may ko ko waaw di ko remercier waaw vraiment. ah mbër loolu am na solo mais pour revenir euh, ñëwaat tuuti ci question bi rek lan moo waral kon léegi temps bi ngay passé donc à l'extérieur gën ëpp temps bi ngay passé fii mel ni léegi concentré concentré woo tew ci làmb ji quoi. waaw mais concentré Europe bu ma demee dama fa daan paraat dama fa daan def Lucha Canaria. dama daan def lucca canaria su ma demee loolu laay pratiquer mais damay nekkal sama business waaw man suma amul fi lamb lool la fay def damay dem def lucca canaria su ma su ma amee combat na ñew mais suma amul combat damay dem lool rek momu té mais man fomu fomu foo fu ne ma ngi ci entraînement waaw fi la gëjë bëré mais damay bëré feulé waaw. mun nañ jàpp da nga tollu situation boo xam il faut nga allier ñaari quoi pour sportivement. waa loolu la xam nga rek xam nga Sénégal boo man man doo toog ñi war a bëri ak yow doo duñ bëri yow promoteur dañuy am seen mbëru bopp du toog 4 ans 5 doo bëre vraiment loolu tamit neexul loolu neexul da nga xam nga yor famille yor jabar yor doom am ñoo xam ni xam nga dañ lay yaakaar kon yow faaw ngay génn dem nekk sa combat dem nekk say business loolu donc moo ma yóbbu ci kaw ah. waaw mais su ma doon am combat du ma génn waaw su ma doon am combat du ma génn fii laay toog préparé voilà. Ambeur ñu gis aussi ay jamono ci ginnaaw mu am benn euh, combat bu am te amoon nga ko fi nga xamante ne mooy Espagne ku ci mel ne ñoom les deux ak ñeneen ñeneen yaa ngi àndoon ak ñoom nga bëri woon ko ak ku mel ni Juan tey loolu lan moo ko waraloon. waaw waaw boobu benn promoteur moo ko tëggoon euh, muy Pepe mooy ménager Juan moom xam nga rek fii la ñu jëlee boobu man ay Ablaye Wade ay les deux fii la ñu jëlee ñu dem Espagne ñu bëre ma ci laa bëree ci la ci laa bëree ak yàlla may ma ndam ci boobu nag ci lañ am relation man ak ñooñu club boobu ci la ñuy nekk nag su ma demee te laay dem di def lu caa Canaria di bëree waaw loolu moo ma booleeg moo ma booleeg moo ma ñoom. boobu sous forme de contrat la woon wala. waaw waaw waaw xam nga rek xam nga mbër moom sa waay moom waaw sunu mbërum <laughs> bopp lañ waaw xam nga Sénégal ak fii du benn contrat la ñu jël ñu dem waaw ñun ñëpp ku ci nekk contrat lañ si ak yow. ñu dem yàlla def xam nga ñu bëre ñun ñëpp waaw loolu demee quoi kon bu weesoo lamb ji ñu yaa ngi pratiquer beneen sport bu ñu woowe luca luca canaria waaw comme bombardier ku ñu mel ni bombardier ni ni muy defee lamb di def sport mel ni mma yow tamit yaa ngi pratiquer beneen sport bu nekk luca canaria waaw waaw waaw comme bombardier rek xam nga lamb moom dafa toll foo xam te ni faaw ngay génn di jël xam-xam yi ci biti di ko boole gi nekk fii loolu rek moo ñu si dugal daal waaw bombardier li muy def tamit rafetlu nañ ko waaw mais ku doon am combat lamb ji fii nag li nekk fii moom yemul ak fenn waaw ñun lamb Sénégal lañ xam mais faaw nga génn pour boole ci yeneen loolu donc moo ci dugal Bombardier dugal ma ci du ci dugal yeneen mbër voilà. waaw mbër ñu dégg aussi récemment ku ci mel ni guy yi mu def benn sortie donc daal di wax ni 100 pour cent géejuwaay moom moo ko taxawaloon mais léegi dafa am ñoo am te tey ñu ngi koy commencé yàq te open press Balla bi passé wane nañ tey mbëru géejuwaay des nañoo suude tey kàddu yooyu nan nga ko jàngatee. waaw mais xam nga guy gi li mu wax dëgg la. parce que gis nga ñun mbër yi ñun géejawaay comme li li li ñuy wax ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay muy man muy Balla Gaye muy Lac de muy guy gi muy Lac muy Elton mais dafa am ay seytaane yoo xam ni ñooy bëgg place nekk ci biir xam xam nga ñun mbër mbër yooyu yëpp kenn yaakaaru ci kenn ñun ñun ñun ñun li ñuy am ñun ñoo koy may suñu bopp mais Balla Gaye ci boppam comme que yàlla def ne moom la yàlla jiital ci kii moom moo war a xam ni kat champion la yàlla may na ko lu lu lu mayul kenn moo war a yamale ñëpp su amee combat ni mu doon woo gu mu woo gi woo Abdou Diouf woo Lac de woo ni leen ah doom day kat dama xewle loolu mooy li rafet du dëgg mais nag xam nga am na ñoo xam ni nit ñi version yi ñoo bokkul yow fu la woowul soo fa ñëwee xam nga boo fa tojee kaas yaa ko def mais de billaay wallaay guy gi de xam naa ko xam naa sam bopp ak ñoom lees ak ñooñu mais seen xol boo ko ubbi woon mooy Balla Gaye 2 am ndam parce que bu amee ndam ñun ñoo am ndam man Balla Gaye xam na li may wax bu baax doxal naa ko trois heures du matin ci loo xam te ni mënoon nañu sax rey combat am ak Tyson ànd naa ak Serigne ak Thierno Gueye ñu dem fi din yi fi nga xam ne Tyson dafay entraîner ci àll bi foo xam ne fajar la Tyson daan ñëw ñu dem réer fa man ak Thierno Gueye ñu wër wër wër wër ba gis ko te heure bi foog buñ ko gis ba doon miine foofu Tyson mën nañu fa fekk boobu mi nga ànd ak ñoom Eumeu seen ñoom ñoom ñoom booy nekk Pikine ay groupe lañu àndal te buñ ma fekkoon mën nañu fa rey xama mais loolu lépp ak yeneen ak yeneen seex nañ teraanga mais nag fu ñu la woowul doo fa nekk yes sax loolu rek la mais Balla xam nga waaw mais yàlla na ko yàlla may may beneen combat may ko ay ndam yu bari waaw loolu rek la moo tax ah, mais moom moo war a woote comme Pape Maman chaque jour di remercier tamit Pape pap ma douanier la bañ na ko man ñi ma xam ñëpp boroom ñaari paab lañu may woowee pap ma ma douanier la mais dafa yàlla def ni ñun ay xarit lañ nekk ñu ay xam nga ay ay copain lañ dañuy miinante dañuy saagante lu ne 4-4 bi may dawal email bi moo ko yëkkati jox ma ko xam nga te teraanga ñëpp mbëru géejawaay yëpp lay defal teraanga ku ci am combat mu ci sonnoo fi mu toll nii jubóo moom mii combat bi lu ne la ci daj xam nga kon dafa am loo xam ni ba nañ ko moom Balla Gaye laay wax ci boppam xam nga xam ni moo leen jaboote comme que yàlla def na fi teg na ko foo xam ni tegu fa kenn isam la na wàcce boppam woo Lester woo Elton woo ñëpp loolu lu koy lu koy yokk la rek waaw loolu laa bëgg ma kon su ma la déggee daal nekk ngeen ñoo xamante ni yaa ngeen pré waajal bis ak Balla Gaye yàgg daj ay coono ci wetam mais dafa am sama lii nii ci combat Balla Gaye combat Balla Gaye ni la kon xam ni Balla Gaye man jàmm rek laa ko yéene man samay xol awma dara ki ñaan billaahi wallaahi aw ma daray ki ñaan waaw damal la Balla Gaye xeexal naa ko defal naa ko lu ne mais damal ne boo amee open press muy man muy guy gi woo ma ni ma kat mbër dama am open press jeex na mais ñun duñ topp ci ginnaaw kenn ñun duñ sibaru kenn yàlla daf ñoo teral bu làmb ji dëgëree ñu dem nekk ci leneen waaw mais nag yàlla bu mu la may benn pouvoir ba nga def ni yow yow yow boo nee boo xam nga loolu du àdduna waaw ni da ngay wàcc sa bopp am ak ñëpp jàmm waa xam ne yow la yàlla jiital loolu rek laa bëgg Balla di ko def waa na woo ñëpp xamal ni waaw xamal ni yàlla def moom la géejawaay moom lañ fi teg waaw Lac de nag di xamal nag gars yi Lac de yàlla def ni tamit comme Alioune Sall li muy defal Balla Gaye na woo Lac de di ko defal mburu géejawaay xam nga na woo Lac de xam ni tamit Lac de drapo drapeau géejawaay lay lay yëkkati lépp lu ci man lu ne comme niñ def ci combat bi nañ ko jàppante fexe woo Lac de woo Balla Gaye woo guy gi woo les woo Elton ñoom ñëpp ñu jàpp parce que booy ñaakat xam nga làmmiñam rey na lool te xam nga waaw nañ ci jàpp freiné ko mu xam ni fii duñ ay moroomam. mbër lool dinañ ci ñëw ci kanam ci Lac de Guiers mais dama su ma déggee say wax da kon dafa mel ni yàgg nga ànd ak Balla Gaye di waaj moom ay bis yàgg daj ay coono ci ay wetam mais dafa am ñoom te ñuy jóge ci àll bi ñëw di leen jaxase ak moom. waaw non Balla Balla loolu day am quoi pas man sax muy man ak guy gi ak ñeneen ak ñeneen du dëgg. déggoo man la Balla Gaye amul combat yi ma pré ànd ak moom préparé yëpp yàlla da koy may ndam tout ak mais am na yoo xam ni sax du ma fekk mais dama koy xamal ni ko Balla ci boppam moom la yàlla teg foo xam ni tegu fa kenn. doguma doguma la mais combat bi passé fi la la fekk wala fekkul. non combat bi fi la ma fekk. combat bi fi la ma fekk mais wax dëgg yàlla de open press bi dama ko dégg nii rek woowu ma xam nga am na sama numéro. estat lu mu dugal mu gis ko am na sama numéro am naa numéro mais comme que moom mi nga xam te ni moom mooy champion moom moom war a woo ni ma kat Abdou dama nekk dama man du njiglaayam laa dama dama am combat bu ko defee man sax mën naa woo mbëru waa yëpp ku ne ñëw mais woowu ma moo tax ma toog jàpp sama ñaam te Balla moom xam na man xam na xam na li ma ko yéene waa mais man nit ki fi may teg rek boo ma jàppee ma jàpp la waaw Pamaye lu tax ma jàpp ko dafa ma yëg dafa ma yëg billaahi wallaahi dafa ma yëg du question dara mais dafa maa yëg am cofeel ci man moo tax ma jàpp ko te di ko ñaanal comme li mu rek Macky Sall ñu mel ni Pape Mayel lay wër di ko ñaanal lépp lu mu bëgg ci nguur gi yàlla may ko ko waaw lépp lu mu mbébét yàlla may ko ko voilà. am mbër comme mun nañ jàpp ni rek donc problème bi am ci diggante mbëru géej waaye problème de communication la. waaw loolu la loolu la problème de communication la parce que xam rek comme li ma rek Balla Gaye moom waaw na woote waat na woo guy gi na woo guy gi woo woo woo xam nga woo ma xam ne ñun ñoo bokk ndey ak baay ñun ñëpp benn lañ billaahi wallaahi Balla gay de barki alxuraan laa la wax fii sama xol bi boo ci ëbbee keroog dama zibilé kon xam ne man aw ma cofeel laa am ci moom dama la trois heures du matin man ak suma doom day bii ñoo ko seetaandoo li may wax xam na ko trois heures du matin dem naa ko nekk ak moom ci ci nekk foo xam yëkk ni fii lañ ma tëb dóor ma ah, xam nga def nañ ma lu nekk ci ko ndax combat Balla kon xam na ni Balla ñun ndam rek lañ ko yéene. mais so démé ba toll fo xamni gisoto lo lepp ñun dañuy tok japp suñu ñamb ñun yaakaaruñ ci kenn duñ boru kenn yalla mi ñuy dimbali waaw yalla lepp lu ñuy fekk mi ngi ni par hasard tey dañoo tuddu lañ dem rek am ko xamni dafa am tiofel ci man yalla def nit ñi bare fa mu woma ma ni ma abdu dama la yag supporté te damay defal mbeuri ay taranga damay defal mbeur yëpp ay taranga xam nga dama koy defal balage dama koy defal mais yow comme koy dama la yàgg yag sopp am na yeneen mbëri yu mu ma ñew ni ma dina la mayna la terrain demal lëndi ànd diw ñu jox la sa kayit terrain waaw xam nga loolu sant yàlla kon nga xam ne yàlla seetaanu ma voilà nit nag danga nga may jox sama cër boo ma joxee sama cër man li ma mën ak lu ma mën lépp naa ko def loolu mooy àdduna